أجابني رب السماء ولكن الذي سماء ومنه قاتل السماء ونعم مالي وسماء أجابني رب السماء الأولين والآخرين القائل في محكم تنزيله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فحسى أولئك أن يكونوا من المهتدين والصلاة والسلام على إمام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وبعد alcadaalatu fi lislaami hiya awalu qiimatin kubra naadaa biha falam takun hunaalika cadaalatun mumaathila fi ayin min alxadaaraati alsaabiqa fi lislaam fa kullu alxadaaraati kaanat tuqassimu annaasa ila saadatin wa abiid wa xuquuqu saadati taxtalifu ixtilaafan kulliyan an xuquuqi alabiid fa min xaqi sayidi an yastari aw yabiixa al abda aw yaqtulahu doona muxaaqabatin min ahad wa dalla al wadu ala hada al xaal ila an jaa al islaamu fa xarara al abida wa ahtaqa riqaabahum wa wada wa wadaa usasal xadaalati al ijtimaaciya bayna annaasi jamiican bi qaddi nnadari an iddiini aw illawni aw iljins fa xaqu lkaraamati makfuulun lil jamii doona tamyisin bayna rajulin aw imraa aw bay aw bayna ganiyin aw faqir fal islaamu xariisun kulla alxirsi ala an yajida almuslimu maa yakfiihi xadda alkifaaya min qooti yowmihi ida maa quurina ala maa kaana yaxsulu alayhi alinsaanu qabla alislaam wa huwa maa yucrafu bi xaddi alkafaaf ay maa yasuddu ramaqahu faqat wal adaalatu al isla wal adaalatu al ijtimaaiya min al mawduaati min al mawduaati al muhimma allati yajibu ala al muslimina an yashaw li taxqiqiha wa aynama nanzuru ilayha min al manzuri al islami najidu anna rasula sallallahu alayhi wa sallam kaana yashaa daa'iman li taxqiqi li taxqiqi takaafuli al ijtimaai wa irahati nnaasi min almataaib fa innama kaana yaati ilayhi rajulu min almuhaajirina laysa lahu ahlun wala maal kaana yatalubu min al ansaari musaacadatahu kama kaana saxaabatu radiallahu anhum yaxrisuuna ala it'aami kaana yatlubu min al ansaari musaacadatahu kama kaana saxaabatu radiallahu anhum yaxrisuuna ala it'aami sawi alxaajaati walmasaakin wala yatrukuunahum illa baada ishbaahihim wala qad balaga min xirsi omar ibni xataab radiallahu taala anhu ala taxqiqi aladli wa irahati annaasi an qaala wallahi law xasarat baxlatun fi lxiraaqi la suila anha huma waqad qaala anhu rasulullahi sal allahu alayhi wa sallam inna allaha jaxala alxaqa ala lisaani omar على لسان عمر وقلبه ومن أوجه العدالة الاجتماعية التي يجب على المجتمع تطبيقها أن يكافأ المتميز والمجتهد في جميع المجالات للنهوض بالمجتمع فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكافئ الفارس في الغزوات ويعطيه ضعف ما ياقصه المترجل fa asamatul islaami tatajalla fi tatbiqi al adalati al ijtimaaiya xatta shaaru bi adli al xomarayni xomar ibni xataaf wa xomar ibni abdil asis radiyallahu anhuma فما أحوجنا أن أن نتأسى بسلفنا الصالح ونسير على نهجهم ودربهم في إيصال الحق لأصحابه wa nadriba bi siddatin ala aydi al mufsidiina xataa yumakkana taxqiiqu al adaalati al ijtimaahiya al manshuura wa yasuuda al istiqraaru wal amaanu rubooca bilaadina wala yajrimannakum sana'aanu qawmin ala allaa tacdiluu icdiluu huwa aqrabu li taqwa yaxfiru llaahu lii wa lakum wa li saa'iri l muslimiin الحمد لله المحمود في أرضه وسمائه المشكور فيه فيهما بالجم من نعمائه وصلى وسلم على خير مبعوث للنشر الحق وطي الباطل سيدنا محمد وابل الخير الهادل wa ala alihi wa sahbihi alladina sayaru diida shirki sharra aatil alladina badalu liddiini xaqahu bila maqli maatil amma ba'du fa inna xayra alhadii kitaabullah wa xayru alhadii hadii muhammadin sallallahu taala alayhi wa sallam wa sarru al-umuuri muhdasaatuha wa kullu muhdasatin bid'a wa kullu bid'atin dalaalatun wa kullu dalalatin fi nnar waalamu yaa ibadallah anna xayra mattaqattum waslatan li rabbikum wa ridaa'ih tawxiiduhu wa idaamatu shukrihi wa thanaa'ihi wa siyaanatu wadaa'ihi wa iqaamatu sharaa'ihi fi awqaatiha almacluumaat wa hay'aatiha almacuudaat ala wafqi sunnati shaari'iha almardiyya fii kulli bukratin wa ashi waxtasimu bi abdillahi jamihan wala tafarraqu wa iyaakum wa mubaarasata alwaahidi alqahaari bilxisyaan biqtihaami manaahihi aw bi istixfaafin bi awaamirihi fi lawaamir aw bi muqaabalati baadikum baadan bi zulmi wa dugyaan yaa ayuha alladina aamanu laa tattabi'u xudwaati sheytaan wa man yattabi' xudwaati sheytaani fa innahu yaamuru bil fahshaa'i wal munkar wa fi lxadiis laa yuminu ahadukum xatta yuhibba li axiihi maa yuhibbu li nafsihi rawaahu lbuxaari wa muslim waffaqana allaahu wa iyyaakum li taa'atihi wa atamma taqsiiranaa bi afwihi wa xilmihi wa bi qabuulin xasanin taqabbala minnaa wa minkum bi fadlihi wa juudihi wa karamihi aamiin yaxfirullaahu lii wa lakum wa li jamiihil muslimiin amiin nuyoo mu ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. na kàddu yi ni mu ko déggee ñi ñi ko ci ginnaawam waroon nañ koo mën a yóbbaale. ndax ku ci wax rek yóbbaale nga sa morom. te ñëwoon na fi barki démb. kon xanaa wax ci turu Cheikh mu ne xanaa tey kàddu yi muy wax rek ci turu Serigne Touba Cheikh Mahamadou Mountakha. tàmbalee nuyoo bi nag ci sama kilifa yu tedd yi fi teew. nee na mu tàmbalee nuyoo bi nag ci kilifaam yu tedd yi fi teew. xam naa ne lim ko dana jafe. mu ne xam na ne lim ko dana jafe. ndax dama leen ñu ci bari gisuma leen. ndax nee na ci kanam rek la xool te ñi ci des ci ginnaaw gisu leen. kon bu ma ci ñett rek. mu ne kon day may ñaan rek bu ci tuddee ñaar wala ñett. mën a yóbbaale ñu ci des. ñu yóbbaaleel ko ñi nga xam ne tegu leen bët ten féete ko ci ginnaaw. kon ñu tàmbalee siyaare bi ci kilifa jotaay bi. nee na ñu ngi tàmbalee siyaare bi ci kilifa jotaay bi. Cheikh Mouhamadou Moustapha Cheikh Abdoul Ahad. di Serigne Modou Moustapha moom Cheikh Abdoul Ahad. di bu baax. di ko siyaare bu baax. ndax li ñuy wax ci turu Serigne bi. jàpp ne lii ñuy wax ci turu lañ koy waxaale. ci lañ koy waxaale. di ci teg Serigne Moustapha Cheikh Abdoul Khadir. di ci teg Serigne Moustapha moom Cheikh Abdoul Khadir. mi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha. moom mi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha. moo ko tànn yebal ko. moo ko tànn yebal ko. jiite si julli gi. ngir mu jiite si julli gi. kon ni ko koy yabale ci fu bare bare. tamit noonu mu koy defee di ko yabal fu bare bare. ñu ngi leen ñaanal suñ kilifa yi teew yëpp. nee na ñu ngi ñaanal it suñ kilifa yi teew yëpp. suñu borom guddal seeni fan. suñu seeni fan. te dolli leen ak wér. di nuyu Serigne Mbacke Daba Sarr. di nuyu Serigne Mbacke Daba Sarr. ñi nga xam ne xam ngeen ni mu fi demee. moom bi nga xam ne xam ngeen ni mu demee fii. ak sëñ Fallou. ak sëñ Fallou. suñu Mamadou. moom sëñ Mahmoudal. ak njabootu Cheikh Mouhamadou Fadal gépp. ak mbooleem njabootu Cheikh Mouhamadou Fadal gépp nag. ci tuddee sëñ Cheikh Ibrahima. ci turu Serigne Cheikh Ibrahima. ak Serigne Hamsatou Mbacke Cheikh Abdoul Ahad. ak Serigne Hamsatou Mbacke mu Cheikh Abdoul ak Serigne Mahmoudal mu Cheikh Abdoul ak Serigne Mahmoudal mu yoonu Mouride yëpp ndax ñëpp fi teew. ak yoonu Mouride yëpp ndax ñëpp fi teew. kaddu yi du gudd. nee na kaddu yi du gudd. sëñ Cheikh Aliou bu waxee. ndax sëñ Cheikh Aliou bu waxee. wala sëñ Bassirou. wala sëñ Bassirou. wala sëñ Modou Mahfous mi nga xam ne. wala sëñ Modou Mahfous mi nga xam ne. mënees na koo jàpp jaay ko. mënees na koo jàpp dem jaayi ko. mën nañoo yóbbaale. mën nañoo yóbbaale. kon sëriñ bi nee na mi ngi sant ñi fi teew ñëpp. kon sëriñ bi nee na mi ngi sant ñi fi teew ñëpp. di rafetlu jëf ji nga xam ne Cheikh Abdoul Ahad di doomam def na ko. di rafetlu jëf ji nga xam ne Cheikh Abdoul Ahad di doomam def na ko. ndax jàkka ndax jàkka néegub yàlla la néegub yàlla la wa anna al masajida lillahi wa anna al masajida lillahi falaa tad'u ma'a ahadan falaa tad'u ma'a allahi ahadan waaye nag innama ya'muru masajida allahi waaye nag innama ya'muru masajida allah man amana billahi wal yawmil akhir man amana billahi wal yawmil akhir kon jàkka kon jàkka bu ñu ko tabaxee ba noppi bu ñu ko tabaxee ba noppi la ci ëpp solo la ci ëpp solo mooy fexe ba dundal ko fexe ba dundal nag li mooy ña fay julli. mooy ña fay julli. la Serigne Touba ñaanoon ci Matlaboul Fawzayni. la Serigne Touba ñaanoon ci Matlaboul Fawzayni. newal tuuf bi tan. newal tuuf bi tan. fiihi jamaatan tuqiim. fiihi jamaatan tuqiim. assalawaatil xamsa. assalawaatil xamsa. da'ban yaa hakiim. da'ban yaa hakiim. Cheikh Mouhamadou Mountakha ma naa dégg ci làmmiñam mu ne. Cheikh Mouhamadou Mountakha ma samaa dégg ci làmmiñam mu ne. jamono yi ñuy tëj euh, jàkka yi. jamono yi ni tëj jàkka ji. ca corona bi. ca corona ba. mu ne bayit woowu. mu ne bayit woowu. suñ jàkk suñu jàkk yëpp moo ko indi. suñu jàkk yëpp moo ko indi. ndax ndax jàkka ji sëñ bi defoon ca Mayomba. ndax jàkka ji sëñ bi defoon ci Mayomba. te te dindi ko sànni. te dindi ko sànni. moo jur jàkka yëpp. moo jur jàkka yëpp. kon Cheikh Abdou bi nee na mi ngi lay sant. kon sëñ Cheikh Abdou sëriñ bi nee na mi ngi lay sant. ndax nit kat. ndax nit kat. ñu ngi koy sant di ko gërëm. dañ koy sant di ko gërëm. ca lam war lam war a nekk bu ko defee. ca lam war a nekk bu ca nekkee di ko def. te képp kuy dàkk bëggu Serigne Touba. te képp kuy dàkk bëggu Serigne Touba. dara jiitu ci néegub yàlla. dara jiituwu ci néegub yàlla. ndax xam ngeen ne fu mu mës a ndax xam ngeen ne fu masa mës a sanc. bala ñoo defar néeg bi muy nekk. bala ñuy defar néeg bi muy nekk. jàkka ji a def. jàkka a defar. kon nag wax ji du gudd. kon wax ji du gudd. ñu ngi siyaare itam suñu mbokk mu baax mi. nee na mi ngi siyaare itam mbokkam baax mi. di Sidi Ahmed si. di Sidi si. teewaale fi mboolem jabaru Cheikh Alhaji Malick si yëpp. teewal fi mbooleem njabootu Cheikh Sidi Alhaji Malick yëpp. ak këri diini yëpp. yëpp. xam naa wax ji day gàtt nag xam naa wax ji day gàtt nag ndax sama kilifa yi fi ne ndax kilifaam yi fi ne ñoo ma dàq wax fuuf ñoo ma dàq wax fuuf gën maa xam li ñuy wax gën gën maa xam li ñuy wax rawatina sëñ Moustapha mii doon jiite rawatina nag sëñ Moustapha mii doon jiite léegi rek maa ngi koy waxtaan ak sama mbokk ma jege nee na rek maa ngi waxtaan ak sama mbokk ma jege ñu ne sëñ Moustapha géej la mu ne ko sëñ Moustapha géej la géej la ci biir yoon wi géej ci biir yoon mooy lépp loo xam mooy lépp la xam. kon ku kuy waxee ci ginnaawam. kon kuy waxee ci ginnaawam. faaw nga xool bu baax li ngay wax. faaw nga xool bu baax li ngay wax. kon nag euh, comme alxuraan dafa wax ne. comme alxuraan dafa wax ne. fa iza qudiyati salaatu. fa iza qudiyati salaatu. fantasiroo fil ardi. fantasiroo fil ardi. wabtaqu min fadlillah. wabtaqu min fadlillah. donte lii ci la bokk nag. donte nag lii ci la bokk. moo tax jëru guddal. moo tax jëru guddal. asalaamaaleykum. wa salaamualeykum. wa rahmatullahi wa barakaatu. wa rahmatullahi wa barakaatu. wa rahmatullahi taala wa barakaatu. maa ngi jégglu sunu kàddu yu ñuy yëkkati gannaaw bi sunu waajur Cheikh Mouhamadul Bachir ibnu Cheikh Abdoul Khadir gannaaw bi mu yëkkatee kàddoom ba pare ñoo ngi koy jégglu kàdd yu ñuy waat ci gannaaw di lu sëriñ Cheikh mu sëriñ Aliou di sunu xalifa di sunu kilifa moom dama koy wax ni ko jataay boo teew daaru xuddoos guy mbind amatu fa kàddu kon sëriñ seex ñu ngi lay ziyaara ñëw fi ci turu sëriñ Mouhamadou mustafa ibnu Seex Sidil Muxtaar ànd ak sunu kilifa muy sëriñ Seex Mbàkke ibnu Seex Abdul Aziz ak sëriñ Sidi Mbàkke ibnu Seex Abdul Aziz ak sëriñ Maam Seex Mbàkke Ayes ak sëriñ Fàllu Sall di sunu jaam bokk ci njabootu Cheikh Mamadou Fadel waaye di soppe waa kër Serigne Baara kon ñu ngi yëkkati sunu kàddu di jégglu Serigne Moustapha ibnu Cheikh Abdoul Ahad mi nga xam ne mooy kilifa jataay yëkkati sunuy kàddu ci kàddu yu gàtt ci turu Cheikh Abdoul Ahad Gaynde Fatma mi nga xam ni moo jëf jëf ju rëy ji nga xam ni dugg na ci taarixu yoonu murit dugg na ci taarixu lislaam ndax maamam Seexul Xadiim bi muy sañ ci Tuubaa ci matlabul ni wajaalhu dëban maskana taallumi wa mawdia alfikrati wa tafahumi wal tusbitan fiihi jamaatan tuqiim alsalawaati alxamsa dëban yaa xakim loola sañte Tuubaa kon moom fa tabaarakallaahu bu yàlla dogalee mu ñëw ci dëkk bii jëf jëf jure ji mbokk yépp daja fi may tudd sëriñ Modou Mahfous mi nga xam ni mooy kilifaam di baayam di waajuram teew fi teewaayu sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké Gaynde Fatma waaye teew fi teewaayu soxna Baali bintu soxna May sëriñ Modou Mahfous ñu ngi lay sant di la gërëm bërki démb seetaan nañ la nga wax ni Cheikh Abdoul Ahad yaa ko dugal école lu jiit école yaa ko yóbbu mu jàng alxuraan ba bind kaamil waaye sëriñ mot sa loo dañu daan wax ni alxuraan gàtt ci laa nanguwul waaye runge ku mokkalu alxuraan du ko def man bi may tare alxuraan benn baat laa jël ñu delloo ma ma dem jàngiwaat un wa anhukum baynahum bi ma anzala allahu wala tattabi ahwaahum waxsarhumu an yaftinuka an ma anzala allahu ilayka googu laa jël indi ko ci bi ci kanam ñu delloo ma ne ma demal jàng sëriñ basiru mii mu sëñ abdou xaadir xiraatuha kanzi wa izzi wa jaahi uniltu biha kaw ni ladallaahi sa sidqi lool la maam sëriñ tubaa wax muy naafila alxuraan kon bu yàlla dogalee muy jàng alxuraan ba fab inna alladina kafaru saaun alayhim wa ansartum am lam tunsirum laa yuminuuna xatamallaahu indi wa saaun alayhim wa ansartum am lam tunsirum laa yuminuuna innama tunsiru man ittaba zikra ca suuratul yaasin loolu ku mokkal alxuraan mooy def loolu ndax ñoom ñii sëriñ tubaa da leen rafatale alxuraan sëriñ tubaa moo wax ni a mallakanil quraana tamlikan yadum sama moom sama boroom dama moom loo alxuraan moom gu sax dàkk sëriñ Abdou bu ko sëriñ Modou Mahfous yare jàngal ko alxuraan mu jóge fa mu jàngal ko xam-xam dugal ko école mu dem jàng ba yàlla dogal mu xam li doomu soxna di xam lépp ñëw te kenn masu koo gis ci kum séqal àdduna mu wax la walla mu jëf la wala mu tooñ la te yonente bi dafa wax ni doomu aadama man salimal muslimuna min lisaanihi wa yadihi si abdu lokk loolu moo ko dal digganteem ak jullit du lar kenn ci ayam ci làmmiñam du lor kenn ci loxoom kon bu yàlla dogalee mu def lu mel nii sëriñ Modou Mahfous ñëw teew mu koy sant di ko gërëm sëriñ Sidi Ahmed di suñu waajur ànd ak sunu doomu baay bii di doomu sox sëriñ Maoda Cheikh Omar bu sëriñ Maoda mu Cheikh Abdoul Aziz Dabakh day delluwaat rek ca ca joxulante yi nga xam ni sëriñ tubaa daana ko joxulante ci ay bind ak Seydi Alhaji Malick hadiyatun mujibuha tilaabu mahabbatun yaa ayyuhal xubbaabu ba mu jeex Serigne Touba tontu ko ni ko jazaakumu xayral wa xayral wa xayral jazal wahaabu wa fiya saful widaadi laa taraabu fa kayfa laa wal mustafal mujaabu imaamuna wal xitla laa nahaabu loolu mooy li doxoon seen diggante kon Serigne Sidi Ahmed ñu ngi lay sant di la gërëm di gërëm sëriñ Fallou mu sëriñ Mouhamadan mu sëriñ Massamba teew fa ci turu sëriñ Mamor di xarifab sëriñ Massamba ñu ngi koy sant di ko gërëm di sant sëriñ Hamsatu mu sëriñ Abdoul Ahad nga xam ni moom dama ko tuddee l'infatigable de la confrérie mouride du sonn du tayyi du yuqat saa su nekk lépp lu nit xewle bu ko yëgee dana jóg def ca lam ci war a def kon sëriñ Hamsatu ñu ngi lay sant di la gërëm gis naa fi sëriñ Ibrahima mu sëriñ Fàllu di ko sant moom ci taxawaayam sëriñ abdu mi ngi sant it sëriñ Moustapha Abdoul Akram moom sunu waajur la sunu xarit la sunu soppe la waaye di delluwaat di sant sëriñ Bassirou Abdou Khadir mi nga xam ne yàlla moo ko boole ak moom mbokk gu nekk mbokk gu nekk day am xarit te Cheikh Abdoul Ahad yàlla moo ko boole sëriñ Abdou sëriñ Bassirou mu sëriñ Abdou Khadir sëriñ Bassirou démb rek ñëw na fi ànd ak une forte délégation kon amoon na ngant ci teew fi tey waaye teewul dafa bàyyi itam yëpp ñëw bokk ak sëñ Abdou bis bii kon sëñ Basiirou sëñ Abdou mi ngi lay sant waaye yow mbokk yëpp ñu ngi lay sant di la gërëm ndax damay wax ni ni nga fonk sa kilifa yii foo teew ci jataay ñun ñii di say doom dañ ñuy jàngalaat ak taalibe ci ni ngay doxee sa diggante ak say mag kon Cheikh Mahmoudul Basir ñu ngi lay sant sëriñ seexum sëñ Abdou Latif nga xam ni dafay teew ñaari cër jaam la ci sëñ Abdou di doomi ndeyam waaye teew fi ci turu sëriñ sax sëriñ Muntaxa kon sëñ bi ñu ngi lay nuyu di la sant di la gërëm di nuyu suñu rakk ji di monsieur le ministre Abdou Karim Fafana sëriñ baa ngi koy sant di ko gërëm ci taxawaayam ci yaatoom ci mbaaxam moom ak sëriñ Dame Diop gis nañ leen fi waaye sëriñ Abdou def nga lu am solo salaasa tijaaraatin laysa maaha xasaara ñetti commerce mi ngi nii yoo xam ni pertement du ci am ñu ne ban ak ban muy xiraatal quran jàng al quran wal wa iqaami salaat wal infaq fi sabilillah yàlla jàng nañ ci alquran inna alladina yatluuna kitaaballahi wa aqaamu salaata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaaniyatan yarjuuna tijaaratan lan tabuura yow loolu la la sa maam rafaatale mooy tabax jàng alxuraan mooy sanc ay daara te Cheikh Abdou fa tabaarakallaahu ci loolu nga nekk bari na dëkk bi ci réew mi àll yoo xam ni gor nga ko def fa ay daara lii rek mooy li nga xam ni mën nañ cee teg bët te Sëriñ Tubaa dafa wax ni naajaaniyal munzilu bil quraani xataa xadawtu mawrida zamaani sama borom subhaanahu wa taala ci alxuraan la ma wuyoo defal ma ci may mujj naanukaayu képp ku kon yow ci loolu nga nekk beneen bi ci des tabax jumaa mi ngi nii tey firnde ji mooy jumaa ji la ubbi te ko xool sëriñ Touba bi mu sañtee Jurbel photo yii ngeen gis mu génn jamono yii lam ci doon def mooy pose pierre jumaay Jurbel kon ñun Serigne bi jàngal nañu nan lañu war a taxawoo diine nan lañu war a taxawoo lislaam bi ci des mooy al infaq fi sabilillah joxe ku mën a def lu baax la ki dem mu benn waaye dafa ñëw ci man ni ma dama bëgg nga santal ma Cheikh Abdoul Ahad ma ne ko ci lan laa la koy santale mu ni ma dama amoon jafe-jafe wér gi yaram ñu waroon ma opeere ma ñëw wax ko ko mu ne ma ñaata la ma wax ko mu yëkkati ma mu yëkkati ko jox ma ko mbokk moomu di nit ku yàlla baaxal mi ngi may seetaan bu déggee li may wax dana xam ne moom moom wax ji juma nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy dem madinatul munawara bi mu ñëwee ba dëkk bu ñuy wax xubaa yàlla dogal na mu wàcc fa tabax fa jumaa taxawu ko ba mu taxaw wu doog a continuer aw yoonam kon li muy tegtale innama yuammaru masajid allahi man amana billahi wal yawmil aaxir wa a salata wa ata zakata wa lam yaxsa ila allah fa ada ulaika an yakunu min al muhtadin bi sallallahu wa sallam dellu wax ni man bana masjidan yabtaxi bi bihi wajhallaahi banallaahu lahu baytan fil janna bi ci des mu wax ni yabtaxi wajhallaahi basarahu llaahu lahu bil janna bu tabaxee jumaa ci àddina bu ëllëgee yàlla warlu ko ay njënd ci àjjana bi yonente bi waxee loolu saxaaba yi am benn saxaaba bu ñëw ni ko ñi nga xam ne am nañu yéene te yàlla dogal na seen kattan ak seen man-man àggul ci ñu tabax jumaa mu ne leen bépp jullit boo xam ne am na yéene tabax jumaa dese ko ci suuf ëllëgee sunu boroom warlul na ko ay njënd ci àjjana kon Cheikh Abdoul Ahad lii nga def nii jëf ju la yow nag fa tabarakallahu da ngaa nekk nit koo xam ni ku yàlla dogal nga am ay jikko yu rafet ndax yonte bi sallallahu alayhi wasallam ni ko sunu borom yónnee innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq la ko yàlla yónni dañu yàlla dama yónni ngir ma mottali jikko yu rafet yi jikko yu rafet yooyu nag bokk na ci di jéggale wal kaazimiina al ghays wal aafiina anin naas wallaahu yuhibbul muhsiniin yow loolu la yàlla def ci yow nga nekk mbokk moo xam ni ku yaatu nga ku mën a muñ nga ku mën a jéggale nga ku mën a taloore nga te yàlla dafa wax ni ñi nga xam ni ñi ngi jëflante jaam yi ñuy dégg ci gémmiñu jaam ñi lu leen di naqari ñu di ko muñ bu ëllëgee danaa ci yokk seen daraja te yow fa tabaarakallaahu yàlla dafa nara loolu te xadamaata xawmun wa maatan makaarimuhum wa sa xaw mënuhum bin naasi amwaat am na ñoo xam ni faatu nañ bu yàgg waaye ba tey ñi ngi ñi ngi nettali seen i jëf yu baax ñi ngi wax seen tëdd ngi jikko waaye am na ñoo xam ñi ngi ci biir société bi di dund waaye ñoog ñi faatu ñooyam ndax am luñ société bi benn njariñ du ci wax ju baax du ci wax ju rafet du ci jëf ju rafet te yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na al muslimu man salima al muslimuna min lisaani wa yadihi waxoon naa ko danaa ci dellu si waat mun ne julli dëgg-dëgg mooy julli bi nga xam ne du wax lu ñaaw du jëf lu ñaaw du ko yëkkat di ko jëmee ci mbokk julli te Cheikh Abdoul Ahad day defal ma ci loolu nga nekk bàyyi nga xel ne imaamu Saafi'i waxoon ni wajaal kunuusaka wajaal bi anna kunuusal ardi min zahabin nee na day doomu aadama yi dañu àdduna jàpp nañ ni li nga xam ne mooy ko mooy mooy xéewali adduna mooy wurus waaye yow doomu aadama bi wajaal kunuusaka min birrin wa imaanin na nga def sa sa sa trésor muy baax ak ngëm yàlla yow nag baax yooyu fa tabaarakallaahu lamboo nga ci ay jikko yoo xam ni moo fi indi mbokk yëpp moo fi indi sëñ Dame Diop ministre moo fi indi ñi sant Boussa gis naa fi sëriñ Sidi Makhtar Ka di sunub jaam di mbokk di ko yàlla baaxal sëñ Sam Boussa ngi nii toog waa Muxaddamatul Xidma ñi ngi toog ñi ngi dëkkal dëkk bi ñi ngi toog te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ni mazale jibrilu yuusini bil jaari xata zanantu annahu sa yuwarrisu nii yàlla yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jibril daawul dañ di ñëw ci man di ma dénk ak i dëkkandoo ba ma jàpp ni bu ma fi jógee dëkkandoo moo may doon yow na fa tabaarakalaaw dëkk bii nga dëkkal muy Touba Yaman sa waajur sëriñ si Ahmadou Mbacke sancoon ko li mu ko sance moom ci jàng ak yar ak dimbali ñu fi ndax damaa dégg sëñ Assane Salam bu wax ni sëriñ Cheikh Mbacke bi mu génnee adduna nee na sun borom wan na ko ay njënnam ci àjjana bi mu laajee ni njënn yi lu tax sëriñ Cheikh am ko ñu ne ko julli mayu ko kode de woor mayu ko ko de ndax loolu suñu borom ñëwagu ci pour xool ko li ko may dafa tukki woon ci réewu tubaab yi gis fa koo xam ni day wax day def waxtu wu xëyee suba génn di doxantu romb ko mu nekk ci mbalit mi loolu ñuy wax buujumaan rek ci termu bi di wut lu mu lekk mu def ko lu ma ñetti fan ba ñeenti fan ba juróomi fan sëñ si am moom ak doomam moom ak ñaari doomam ak soxnaam sëriñ si Amadou Mbàkke daal koy laaj ni ko yow yónnee woolu ko génn ba tolloo moom woolu ko mu ñëw mu ne ko li ngay def nii pour lan la mu ne ko wére diwuma dofuma dara jàpp ma ñàkk moo waral may def nii sëriñ Seex yëkkati alal jox ko ñu jëndal ko ci kër defu ko ngir ab yéefar da ko def ngir doomu aadama ndax yàlla moo ne wala xad karam naa ba nii aadama tereel googu nga xam ne yàlla moo teral doomu aadama fab lépp luy dox ci kaw suuf te matan dagan dagan a yàlla teral la ko doomu aadama mu teral jëmm jooju yàlla sëñ Asan Salaam wax ni ba mu faatoo ci la ko yàlla tere la gis loolu Cheikh Abdoul Ahad nag bi mu sancee bi ma waajuram sancee dëkk bi rafaatale ko mu ñëw fi li mu fi nekkee mooy dimbali waa dëkk bi taxawu waa dëkk bi di leen jàppale di leen dimbali di leen taxaw loolu mooy li am solo kon sëñ Abdoul Ahad mi ngi sant mbokk yëpp di sant taalibeem bu tudd Pape Fall nga xam ne mbokk la di taalibeem di soppeem di xaritam ànd ak moom ci lépp kon mu ngi sant waa dëkk bi di sant mbokk yi fi ñëw yëpp mbokk yi nag li ñu def am na solo ndax li ñu yàlla boole mooy wa taqullaha allati tasaaluna bihi wal arham yàlla da ngeen ma ragal man yàlla mi nga xam ne maa dogal ci yéen mbokk deret te boo lëggee danaa leen ko laaj nan ko sàmme woon lii mooy ak mbokk bu sa mbokk xew xewlee Tuubaa sori na soriwul tey la ajjuma bari na ñoo xam ne si ni ca jumaa ya dend ak seen i kër fa lañ baaxoo di jullee waaye ñi ëpp ci ñoom bàyyi nañ seen jumaa yooyu tey ñëw bokk yow bis bi li ko waral mooy sa jikko yu rafet li ko waral mooy sa mbaax li ko waral mooy sa fonk doomu li ko faral sa mooy sa ndawloo doomu adama ndax njaboot gii ñu Serigne Touba booleel ñu ay taalibe ëpplewul leen dara Serigne Touba ci barkeem la ko yàlla tere la ñuy liggéey di ñu jox di fab seen doom di ko tudd di ñu ko tudde di fab seen doom di ñu ko jox di ñu ko jébbal ñu ngi koy fab di ko yóbbu seeni i daara bari nañ ñoo xamante seen i doom a ngi ci daara kilifa seen baay amul ku ko jàppal watiir wala amul ko jàppal masinu jii loolu lépp Serigne Touba dañ ko tere kon taaliba yooyu nañ leen bàyyiwaat xel gën leen a jàpp gën leen a gën leen a jox cër yow fa tabaarakallaahu Cheikh Abdoul Ahad bàyyi nga loolu xel ma ñëw ci Serigne Moustapha Abdoul Khadir Mbàkke a ngi lay ñaanal ñëpp ñu ngi lay ñaanal yàlla ndax addu'a silaahul mu'min ñaan mooy ngànnaayal ab jullit yow baax nga yaatu nga am nga xam-xam te xam nañ sa digganteek ak Cheikh daa nga ko gane ji ci ay jamono yu yàgg ca Ndakaaru lépp lu mu nekk nga ànd koog moom bokk koog nekk xutba bii nga def moom daanaka mooy discours bi sëriñ sàmm bu sa firi ci ngënee li juma ak li ci yàlla digle nga nekk koo xam ni yaatu nga xol yaatu nga dënn woyof nga te mën ngaa wàcce sa bopp ngir ngir ngir yàlla ak ngir taalibey sëriñ Tuubaa yi te man tawaadaa lillaahi rafahu laahu at tawaadoo dafa am solo ci doomu aadama te fa tabaarakallaahu foo nekk ci loolu nga nekk kon Mbàkke ñu ngi lay sant la gërëm sëriñ Abdou Lahad wax na ni bu sëriñ Modou Mahfouz yëkkatee ay kàddoom sëriñ Sidi Ahmed mii nga xam sunu waajur la di ko yàlla baaxal di ambassadeuru l'islam diggante kër sëriñ Touba ak kër Seydi Alhaji Malick mbokk la woon ca démb muy mbokk koo xam ne mag ñi rafetal nañ ko bàyyi rafetal nañ ko waaye bi mu agsee ci ñoom ñoom ak sunu waajur yii rafetal nañ ko ndax lu xew Touba mu bàyyi ay yitteem ñëw amul guddi amul bëccëg kon sëñ Sidi Ahmed ñu ngi lay sant sëriñ Mahi Niass. teew na fi teewal fi waa kër Maulana Cheikh Ibrahima yëpp ñu ngi koy nuyu di ko sant di ko gërëm ci taxawaayam ak ci teewaayam di sant mbokk yi fi daje yëpp Cheikh Abdoul Ahad xolam sedd na Cheikh Abdoul Ahad nag lii nga am jikko rek la ko may nit mën nga am gën say mbokk mën ngaa ëppale say mbokk waaye mënoo leen a gën yow yaatu nga mën ngaa sonn te lu nit xew la ci àddina yaa nga ca démb rek sëriñ maam seex ne di sama rakk da doon tudd am nga ngànt boo ma woon xam naa ci li nga nekk fan yi waaye da ngaa bàyyi say tépp ñëw Touba ba nga fa jóge da ngaa wan ni kuwaat ñëw wala fi nag dañuy wax ne koo xamul noo koy def nam la defa tax di ñaanal Serigne Mountakha yàlla yàggal ko fi di ñaanal Serigne Mbaye Sy Mansour yàlla yàggal ko fi Serigne Mountakha ak Serigne Mbaye Sy Mansour ak xalifa général yi ci réew mépp nañ leen ñaanal yàlla dëgëral seen i seen i taxawaay ndax luhumul awliyaa i masmuuma ñoom day seen der yi suñu borom subhanahu wa taala da koo tookee ñi nga xam dañuy yëkkati kàddu yi jaaduwul di ko teg ci seen der deru kilifa yooyu nañ xam ne ñi ngi def bàkkaar bu rëy ñi ngi def loo xam ne buñ ko tuubul boo lëggee yàlla dana leen ci duma Cheikh Abdou Lahad sant na ñëpp gërëm na ñëpp mi ngi ñaan yàlla jàmm ci réew mi di ñaanal euh, ku fi ñëw mu delluwaat jàmm ak salaam ñu jox kàddu bi Serigne euh, Modou Mahfouz ba pare ñu jox Serigne Sidi Ahmed ba pare ñu jox Serigne Moustapha mu tënk kaddu yi bu ko defee def ñaan bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina wa mawlana muhammad sayidina wa mawlana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa xadimihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin bokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mu ne bokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. noo ngi tàmbalee sunuy kaddu. sëriñ Mouhamadul Mahfous mu ne ngi tàmbalee ay kaddoom. di kaddu yu cant. di kaddu yu di kaddu yu ñaan. di kaddu yu ñaan. jëmale ko ci sunu kilifa. jëmale ko ci sunu kilifa. di sunu sëriñ. di sunu sëriñ. di ak cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké. di ak cheikh Mouhamadul Mountakha wa raahu. yal ko suñu borom sàmm te aar bi ci boppam. nee na bi ci boppam. bi cheikh Abdoulaye dafay liggéey bii ba mu noppi. bi sëriñ cheikh Abdoulaye dafay liggéey bii ba noppi. ci moom. nee na dafa dem ci moom. xamal ko ne ko liggéey bi moo jàpp bis bii. nee na bi moo jàpp bis de. joxe ndigal rakam ju tedd ji di sëñ Mouhamadou Moustapha bu Cheikh Abdoul Khadir. joxe ngir mu war a ñëw julliku. ngir mu war ci tànnanga lépp moom sëñ bi def na ko. la war ci tànnanga lépp def na ko. yabal la jarbaatu boppam mu ñëw mu ñëw moom itam teewu fi. yabal fi it jarbaatu boppam mu ñëw teewu fi. di sëriñ Cheikh. kon nag sëñ Bassirou Abdoul Khadir. kon nag Cheikh Mahamadou Bassir mu Cheikh Abdoul Khadir. yow mi yor kàddu sëriñ bi. yow mi yore kàddu sëriñ bi. yore kàddu yoon wi. yore kàddu yoon wi. noo ngi lay ñaan nga jottali sunuy cant ak sunuy ngërëm ci Cheikh Mahamadou Mountakha. nee ngi ñaan ci noo ngi ñaan sunu borom mi mën lépp. noo ngi ñaan sunu borom mi mën lépp. mu yàggal ko fi lool. mu yàggal ko fi lool. te may ko wér. ba lépp lu mu yéene liggéeyal maamam ju tedd ja. ko liggéeyal jullit yi. ko liggéeyal jullit yi. ko liggéeyal diine islam. mu def ko na ko bëggee. mu def ko na ko bëggee. ci barke Cheikhul Khadim. ci barke Serigne ngi sant mbokk yi fi teew yëpp. nee ñu ngi sant mbokk fi teew yëpp. jël cant gi teg ko ci loxol Cheikh Mouhamadul Moustapha mu Cheikh Abdoul di jël cant gi nag di ko teg ci loxol Cheikh Mouhamadou Moustapha mu mii kilifa ak bi. mii kilifa mu jot lu ko mboolem mbokk yi njaboot gépp mu jot lu ko mboolem mbokk yi njaboot gépp di sant sunu mbokku bopp mii nga nga xam ne. teew na fi di Cheikh Sidi Ahmed. teew na fi di Cheikh Sidi Ahmed. ibnu Cheikh Al Hadj Abdoul teew fi ngir jëmi boppam. teew fi nag ngir jëmmi boppam. teewal fi sunu mag alxaaji Malick. mi ngi fi sunu mag alxaaji Malick. mi ngi taawub Cheikh Abdoul Aziz. mi ngi mu boole ko ak doomam. mu boole ko ak sëñ Sidi ñoo ngi lay sant bu baax. ngi lay sant bu baax. di rafetlu bu baax sab taxawaay. di bu baax sab taxawaay. nga jot nga ñu ci cant yëpp. nga jot li ñuy yëpp. ci Seydil Hadj Malick. ci Cheikh Sidaasi Malick. ak sëñ Aboubacar Al ak sëriñ njaboot gi. ak mboolem njaboot gi. ndax Touba ak Tiwaawan. du yaari kër genn kër la. ci coobare sunu borom. moo def Seydil Hadj Malick. moo def Cheikh Sidaasi Malick. ak Cheikh ak ñu bokk ci deret. ñu loolu jëfi sunu borom la. ñu bokkati diine islam bi. ñu bokkati diine islam bi. mosu ñoo tàggoo ci lenn itam. ci mosu ñoo tàggoo ci lenn. ànd àndin wu rafet. àndit àndin wu rafet. kon nag ñoo ngi lay sant bu baax. kon ñoo ngi lay sant bu baax. di sant itam. di sant itam kilifa yi Cheikh Abdoul Ahad. kilifa ko ci wajurum ba. tàmbale ko ci wajurum ba. di sëñ Ahmadul Mokhtar. di Cheikh Ahmadul Mokhtar. ñëwal na fi boppam. tey jii njabootu Cheikh Mouhamadou Moustapha gépp teew na fi. gépp teew na di siyaare bu baax itam. di siyaare bu baax. sëñ Sidi Mbacke mu Cheikh Abdou sëriñ Sidi moom Cheikh it la ko war ci bis bi yëpp def na ko. moom it li ko war ci bis bi lépp def na ko. xam na ne Cheikh Abdou Lahad seq ko kenn. xam na ne sëriñ Abdou Lahad mii seq ko kenn. ñoo koy sant bu baax di ko gërëm. ñoo ngi koy sant bu baax di ko di sant mboole mbokk yi fi teew. di mbokk yi fi teew. di sant mboolem kilifa yi bàyyikoo ci yeneen turux yi teew fi. di sant mboolem kilifa yi bàyyikoo ci yeneen tarixa yi te teew fi. ndax tarixa yëpp tabarkalaaw teew nañ fi. ndax tarixa yëpp teew nañ fi. Cheikh Abdoul mii nag. Cheikh Abdoul Ahad mii nag. sunu xol sedd na ci moom bu baax. sunu xol sedd na ci moom bu baax. ñun di ay waajuram. ñun ñii di ay waajuram. ndax bi mu bi mu ñëwee ci dëkk bi. ndax bi mu ñëwee ci dëkk bi. sanc fi kër. sanc fi kër. la mu njëkk a def. la mu njëkk a def. mooy def fi jàngukaayu alxuraan ci biir kër gi. mooy def fi jàngukaayu alxuraan ci biir kër gi. wut ko man wut ko man teg andi ko ci biir kër gi. andi ko ci biir kër gi. wutal ko makkaan. wutal ko makkaan. la war ci moom lépp it mu di ko def. la ci moom lépp it mu di ko def. mboolem bokki taalibe yi bokki jullit yi ci dëkk bi. mboolem bokki taalibe ak bokki jullit yi ci dëkk bi. koo ci xam ne que am nga doom ju mat a jàng. ku ci am doom ju mat a jàng. nga indi ko fii ci biir këram. nga indi ko ci biir këram. ñu leen la xamal na mu gën a rafete mu leen di xamal na mu gën a rafete lépp it mu mu mu gàdd mu gàddul ko boppam. te lépp nag mu gàddul ko boppam dara waru ci kenn. loolu nag jëf la joo xam ne. loolu nag jëf la joo xam ne. jenn jëf féetewu ko kaw. jenn jëf féetewu ko kaw. ndax dañoo wax ne. ndax dañoo wax ne. bala ngaa tabax. jaamukaayu yàlla jàkka bala ngaa tabax jaamukaayu yàlla muy jàkka na nga tabax fu ñuy jànge alxuraanul karim na nga tabax daara ju ni jànge alxuraan ba noppi te loolu la fi njëkk a def te loolu la fi njëkk bi mu jógee ca loolu ba mu jógee ci loolu mu def fi néegub yàlla bii mu def fi néegub yàlla bii def ko ngir jëm yàlla def ko ngir jëmmi yàlla def ko ngir muy ndigalul seexul xadim ngir def ko it ngir muy ndigalul seexul xadim ndax moo moo moo moo doon ak bëgg-bëggam ndax loolu moo doon bëgg-bëgg sëñ kon nag bokki taalibe yi. kon bokki taalibe yi. ak bokki dëkkandoo yi. ak bokki dëkkandoo yi. mel neen ni Cheikh Abdou wàccoon ak yéen. mel na ne yéen waa dëkk bi de Cheikh Abdou wàccoon ak yéen. wutal na leen fu ngeen di jàng fu ngeen fu njaboot di jàng alxuraanul karim. wutal na leen fu seenu njaboot di jàng alxuraanul karim. te la ca la ca war lépp it moo koy def. te la ca war lépp mu gàddu ko di ko def. te tegu ci kenn lenn. te tegu ci kenn len wutal leen barab bu ngeen di jaamoo yàlla. wutal leen it barab bu ngeen di jaamoo yàlla. muy néegub yàlla bu toll nii. muy néegub yàlla bu nii. kon nag. kon nag. dafa mel ni. dafa mel ni. kaddu gi Seydouna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxoon. kaddu gi nga xam ne moom la Seydouna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxoon. ne kullukum raain ne kullukum raain wa kullukum masulun an raiyati wa kullukum masulun an raiyatihi yonent bi dafa wax ne yonent dafa wax ne kenn ku ne ab sàmm nga kenn ku ne ab sàmm nga te kenn ku nekk te kenn ku nekk da nga teew fi suñu borom da nga teew fi suñu borom mu laaj la la nga doon sàmm mu laaj la la nga doon sàmm ak na ko doon sàmmi ak kon loolu Cheikh Abdoulaye xam na ko bu baax te bàyyi na ci bu baax kon Cheikh sëñ Moustapha sëñ bi yebal nga jiite julli gi yow mi fi sëñ bi yebal nga jiite julli gi ñoo ngi sàkku ci yow ñoo ngi sàkku ci yow nga ñaanal Cheikh Abdou Lahad nga ñaanal Cheikh Abdou Lahad ba li mu yéene liggéey ci yoon bi ba li mu yéene liggéey ci yoon bi yéene ko liggéey ci diine ji yéene koo liggéey ci diine ji yéene ko liggéeyal Sëriñ Touba yéene koo liggéeyal Sëriñ Touba sunu borom bàyyi ko fi sunu borom bàyyi ko fi may ko wér may ko wér ba mu def ko nam ko bëgg ko nam ko bëgg di santit bokki daaru moxti yëpp di santit bokki daaru moxti yëpp ndax xam nañ ne Cheikh Abdou seen dooma seen jarbaata ndax xam nañ liñ ci doon Cheikh Abdou seen dooma di seen jarbaata alaaji maam Thierno Mbacke alaaji maam Thierno Mbacke ñëw na fi bii guddee na fi ñëw na fi bii guddee fi lool ñaanal ko ci barab bi ñaanal ko ci barab bi sant ko gërëm ko sant ko gërëm ko sëñ Mbàkkeem sëñ Abdourahman sëñ Mbàkkeem sëñ Abdourahman moom it ñëw na fi moom it ñëw na fi ak mboolem mbokki Daaru yi ak mboolem mbokki Daaru yi sëñ Fallou moom sëñ Mahmoudan Jobbe. sëñ Fallou moom sëñ Mahmoudan Jobbe. teew na fi teewal fi waajuram. teew na fi teewal fi waajuram. di sëñ Mamor. di sëñ Mamor. muy xalifa sëñ Massamba. muy xalifa sëñ Massamba. teewal fi njabootu sëñ Massamba gépp. teewal fi njabootu sëñ Massamba gépp. kon nag bokk yëpp teew nañ kon daal mën naa ne bokk yëpp teew nañ kon nag noo ngi sant ñëpp. kon ñu ngi sant ñëpp. di gërëm ñëpp. di gërëm ñëpp di gërëm it Abdou Karim Fofana. di gërëm it Abdou Karim Fofana. ndax wëllëre la ci Cheikh Abdou. ndax wëllëre la ci soxla Cheikh Abdou. te ku ne xam ne taalibe bi Cheikh Abdoul Khadir la. te ku ne xam na ne it taalibe Cheikh Abdoul Khadir la. Cheikh Moustapha mi mooy buntam ci kër Sëñ Touba. Cheikh Moustapha mi mooy buntam ci Sëñ Touba. te jàpp na Cheikh bi jàppin wu rafet. te jàpp na Cheikh bi jàppin wu rafet. kon nag ñoo koy sant di ko gërëm bu baax kon ñoo koy sant ci kanam sëriñ bi di ko gërëm bu baax. di ko ñaan mu mu jot loolu suñuy ngërëm. di ko ñaanal mu ñaan mu jot ñu suñuy ngërëm. ci kilifa yi nekk ci kanam. ci kilifa yi nekk ci kanam. xat na te jotaay bi xat na. kon xat na te jotaay bi yàgg na. kon nag noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp kon ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. bi di mbokkam mi yëkkati ak ñi ko jiitu daa mel ne yóbbaale nañu géew waaye daa mel ne sëñ Moussa nee na sëñ Modou moom yéen ñëpp ko moom waaw moom dellu ubbi koo turu yàlla nee na mu dellu rek ubbi koo turu yàlla santaat yàlla bu baax santaat yàlla bu baax cant koo xam ni bu amee fu mu tàmbalee amul fu mu yem cant koo xam ne bu amee fu mu tàmbalee daal amul fu mu yem ndax tële nañ ci lottu nañ ci. ndax tële nañ ci ca lottu nañ ci. waaye cant googu nag dafa am fu ñu koy jaarale. waaye cant googu nag daa am fu ñu koy jaarale. mooy ki waral lii. mooy ki waral lii. di suñu maam Cheikhul Khadim. di suñu maam Cheikh Ahmadou Bamba. nañ ko yàlla fayal. yal nañ ko yàlla fayal. yal nañ ko yàlla fayal. yal nañ ko yàlla fayal. yal nañ ko yàlla fayal. yal nañ ko yàlla fayal. moom la. moom la ak rasulullahi ak rasulullahi ak boroomam subhaanahu wa taala ak boroomam subhaanahu wa taala lii lépp nee na lii lépp yal na ko yàlla nangu yal na ko yàlla nangu te bind te bind ko ci téeréem te bind ko nag ca téeréem boobee ñu ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. nee na ñu ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. mu mel ni bu ñu tuddee maam Cheikhul Khadim tudd nañu rasulullah. mu mel ni rek bu ñu tuddee maam Cheikh Ahmadou Bamba tudd nañu rasulullah. loolu ak jagleem la. nee na loolu ak jagleem la. xadimi rasulillahi. xadimi rasulillahi. ñëpp a ngi koy wax. ñëpp a ngi koy wax. waaye ñëpp xamuñu lu mu doon. waaye ñëpp de xamuñu lu mu doon. yomb la am. nee na loolu yomb la am de. cër la boo xam ne. cër la boo xam ne. ki ñu ko cëralee. ki nu ko cëralee. ak ki ko cëralee. ak ki ko ko cëralee. ak ki tax ñu cërale ko ko. ak ki ñu cërale ko ko. ñoom ñett ñoo ko bokk xam. ñaan yàlla mu boole ñu ci njaboot googu. ñaan daal yàlla mu boole ñu ci njaboot googu. ñu nuyu bu baax sëriñ Mouhamadul Moustapha bu suñu baay Cheikh Abdoul Ahad. ñun nuyu bu baax Serigne Moustapha moom sunu wayjur Cheikh Abdoul Ahad Mbacké. siyaare ko bu baax. siyaare ko bu baax. ndokkeel ko bu baax. ndokkeel ko bu baax. bi ñu agsee seen nañ ko. nee na bi ñu agsee day seen nañ la. waaye ni jataay bi demee woon la. waaye ni jataay bi demee woon la de. te ñoom ñoo ñu jàngal. te nee na yéen yéen leen jàngal. firil ñu. firil ñu. njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wa njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ci mbooloom jullit mu toog. ci mbooloom jullit mu toog. rawatina ci néegub yàlla. rawatina ci néegub yàlla. war a jublu ci julli. war a jublu ci julli. waaye ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara. waaye nee na mu ngi lay nuyu de di la ziyaare. ak kilifa yi teew yëpp. nee na nag ak kilifa yi teew yëpp. mën nañu tudd ñëpp. mën nañoo tudd ñëpp de. waaye am na ñooñ bu ñu leen tuddee. waaye am na ci nag ñoo xam ne bu ñu leen tuddee. tudd nañu ñëpp. walaay tudd nañ ñépp du ma ne yoonu murit rek. du ma ne yoonu murit rek. lan mooy ma al murit nee na lan mooy murid. lu mat a xamlu la. nee na baatu murit daal lu mat a xamlu la. te ku nekk moom nga bëgg a doon. nee na nag te murid. bu nekk moom nga bëgg a doon. ndax nga mën a mos ci yàlla dara. ndax nag nga mën a mos ca yàlla dara. mën a am ci yonent bi dara. mën a am ci yonent bi dara. lu ne nag dafa am yoon. lu nekk nag daa am yoon. boo bëggee àgg. boo bëggee àgg. faw nga tegu ci yoon. faw nga tege ci yoon. yaa ayyuha allazina amanu. yaa ayyuha allazina amanu. ittaqullaha. ittaqullaha. wabtaqu. wabtaqu. ilayhi. ilayhi. alwasilata. alwasilata. lu mënul ñàkk la. lu mënul ñàkk la. lu tax. lu tax wajaahidu wajaahidu fi sabilihi fi sabilihi laallakum laallakum tuflihun tuflihun jaalana allahu min almuflihin jaalana allahu min almuflihin njortu rafet na ci nee na njortu rafet na ci yaakaar am na ci yaakaar am na ci nuyu bu baax nuyu bu baax sëriñ Mouhamadul Moustapha bu suñu baay Cheikh Abdoul Khadir sëriñ Mouhamadul Moustapha moom suñu baay Cheikh Abdoul Khadir léegi bi ma koy ziyaara. nee na léegi bi mu koy ziyaare. bi mu jul bi mu sëlmalee. bi mu sëlmalee. nee naa ko naagu wuñu de. nee naa ko naagu wuñu de. waaye julli gi yaakaaru na de. waaye julli gi de yaakaaru na de. njortu rafet na ci de. njortit rafet na ci de. ndax sunnaa na. ndax nee na sunnaa na. na mu war a mel mel na ko. na mu war a mel mel na ko. kon yàlla du def lu dul. def la mu war a def. kon daal yàlla du def lu dul rek la mu war a def. te mooy nangul ñu. te mooy nangul ñu rek. te incha allahu taala nangu na. te incha allahu taala nangu na. bi mu ne Allahu akbar. nee na bi nga nee Allahu akbar. baatu baay Cheikh Abdoul Khadir lay dégg. nee na baatu sëñ Abdoul Khadir daal la doon dégg rek. mu duggee ci Fatiha. nee bi nga duggee ci Fatiha. sa ak suuratul jumaa bi. ak suuratul jumaa bi. ba bu julli gi àgg. ba ni julli gi àggee. man bi ñu paree sax maa ngi naan ndax du ma baamtuwaat. nee na moom mi nga doon wax ci am xelam na ndax baa du ma baamtuwaat. allahuma laa adurru. allahuma laa adurru. moo tax ma ni yàlla nañu yàlla fayal suñu maam ju tedd. moo tax ma jiital na yàlla nañu yàlla fayal suñu maam ju tedd. lii lépp liggéeyam. nee na lii lépp liggéeyam si Ahmed Bamba de. moo tax mbokk yi. moo tax mbokk yi. xaadim Awa Ba wax na ko léegi. Serigne Bassirou moom Serigne xaadim Awa Ba wax na ko léegi. lii lañu am de. nee na lii la am de. leneen lu ñu topp. leneen lu ñu topp. mën nañu fàggu lu ne. mën nañoo fàggu lu ne. waaye lii ñu am dara gënu ko. nee na waaye lii nga xam ne mooy sunu alali bopp dara gënu ko. te ëllëg dinañ defal mag ñi compte rendu. te nee na ëllëg kat danañ taxaw ak mag ñi leeralaat leen. Serigne Mouhamadul Mahfouz yal na yàlla guddal fanam wax na ko léegi. Serigne Modou Mahfouz yal na yàlla guddal sa fan wax nga ko léegi. ca ba ca hadis ba. kullukum raain kullukum raain te ëllëg te kul ëllëg sàmm bu ne sàmm bu ne dinañ la laaj danañ la laaj la ñu la dénkoon lañu la dénkoon noo ko doon sàmme noo ko doon sàmme nga war a def nga war a def compte rendu nga war a def nag compte rendu lii fi maam yi bàyyi lii fi maam yi bàyyi mooma mooma bu dul moom bu dul moom xaw ma leneen luy moom a ah, xaw ma sax leneen luy moom te moom la nag te mooma nag sax te surtout jamono bi ñuy dund. surtout jamono bii ñuy dund. li ñu war. li ñu war nekk la kutlatan waahidatan nekk rek menn mbooloo moo xam ne. dañuy jàppante doon kenn. mënuñu bàyyi rek. mënuñu bàyyi rek. waruñu bàyyi rek. waruñu bàyyi rek. ay kuréel. ay kuréel. di minorité. di minorité. ne la leen neex. ne la leen neex. ñun ñi nekk ci dëgg. ñun ñii nekk ci dëgg. ñu bëgg ñu def face. ñu bëgg ñoo def face. ñu di leen seetaan. ñu di leen seetaan. jaaduwul waru jaaduwut warul. te du am. tey du am. incha allahu taala. incha allahu taala. bu ñu yàlla nattu woon. bu ñu yàlla nattu woon. ñu fekki leen. ñu fekki leen. ànd ak ñoom. ànd ak ñoom. yàlla indi fi ñeneen. yàlla indi fi ñeneen. ñu saytu liggéeyu mag ñi saytu liggéeyu mag ñi. waaye yàlla bum ñu dal. waaye nag loolee de yàlla bum ñu dal. kon sëñ Mouhamadul Moustapha. kon Cheikh Mouhamadul Moustapha. ñu ngi lay nuyu. ñoo ngi lay nuyu. di la ziyaarawaat di la ziyaarawaat. di la ndokkeel bu baax. di la ndokkeel bu baax. di la ñaanal yàlla. di la ñaanal yàlla. fan wu gudd ak wér. fan wu gudd waa ànd ak wér. ak kaaraange. ak kaaraange. ak wattug yàlla. ak wattug yàlla. yàlla boole ñu ko defal ñun ñëpp. yàlla na ñu ko yàlla boole nag defal ñun ñëpp. masawu la itam ci coono yi. masawu la it ci coono yi. bu baax a baax baax. bu baax a baax a baax. nuyu bu baax. nuyu bu baax. ziyaara bu baax. ziyaare bu baax. sëñ Mouhamadul Bachir. Cheikh Mouhamadul Bachir. mu bàyyi Abdul Qadir. mu bàyyi Abdul Qadir. mi amee baatu xalifa bi. mi amee baatu xalifa bi. Serigne Mouhamadul Muntaqa. Serigne Mouhamadul Muntaqa. xafizahu llahu. xafizahu llahu. wa ataala umrahu. wa ataala umrahu. wa ayyadahu. wa ayyadahu. wa nasarahu. wa nasarahu. ci mbooleem mashruucaat yi mu am. ci mbooleem mashruucaat yi mu am. yal na yëpp àgg. yal na yëpp àgg. mu jiite ko. mu jiite ko. ñëpp topp ci. ñëpp topp ci ginnaawam. fa tabaarakallaahu fa tabaarakallaahu waaye itam waaye itam amee baatu yoonu murit yëpp amee baatu yoonu murit nag yëpp man bu ma nee al muridu man nag bu may wax al muridu kuy julli dugg nga kuy julli rek dugg nga ndax mooy ki nam yiw ndax murit kat mooy ki nam mu aw yiw kii ki bëgg a fàggu aw yiw ki bëgg a fàggu aw yiw fi dunya wa fil axira ci adduna ak ci alaxira kon boo gisee ku ko yàlla baaxee kon boo gisee ku yàlla baaxee baax jàppal jàppal kooka fu mu yegg daa fa yegg fu mu yegg rek yow da nga fa àgg lu mu am daa ca mos lu mu amit da nga ca mos kon sëñ Bachir ñu ngi lay ñaanal yow itam kon sëñ Bachir ñoo ngi lay ñaanal yow itam fan wu gudd ak wér fan wu gudd ànd ak wér masawu la coono masawu la coono yàlla wattul la boppam yàlla wattul la boppam yàlla aaral la boppam yàlla aaral la boppam yàlla na ko yàlla def yàlla ko yàlla def léeg-léeg ma ni léeg-léeg ma ne ñun ñëpp sopp nañu maam Cheikhul Khadim ñun ñëpp day sopp nañ maam Cheikhul Khadim bëgg nañ ko bëgg nañ waaye bu ñu xër nag ba. waaye nag bu ñu xër ba. ñun mbokk taalibe yi. ñun mbokk taalibe ñun bëgg ñun soppe yi. ñun soppe yi. bu ñu àgg ci xërte. bu nu àgg ci xërte. ba bëgg dóor suñu dënn. ba bëgg a dóor suñu dënn. ne li ma am ci sëriñ bi. ne li ma am ci sëriñ bi. njabootu sëriñ bi amuñu ko. njabootu sëriñ bi amuñu ko. mënul nekk. loolu daa munta ne moom. nee loolu daa munta ne. xayru maaquul. nee na loolu munta nekk bu leen ko wax. waaw mënul nekk. mënut a nekk sëriñ bi. sëriñ bi du ñu palmaan. du ñu palmaan ba ñu tàkk. ba ñu tàkk mu rombal mbànd njaboot. mu rombal mbànd njaboot gi mënut a ne. mënul nekk mënta ne moom yàlla nañ ko yàlla fayal yàlla nañ ko yàlla fayal fa tabaarakallah fa tabaarakallah nuyu Serigne Hamza nuyu Serigne Hamza bu suñu Baye Abdoul Ahad bu Serigne Baye Abdoul Ahad li Serigne Bachir Khadim Awa Ba seede ci moom dëgg la li sëñ Basiru Khadim Awa Ba seede ci moom dëgg la te ñun ñëpp la war nag te ñun ñëpp la war nag nuyu Serigne Mouhamadul Mahfouz nuyu Serigne Mouhamadul Mahfouz léegi bi ma agsee mi ngi ma naan sang bi léegi bi ma agsee mi ngi naan ma sang bi ma ni ko càng gi mu soppi naa ko man maay jaam bi léegi. nee ma ne léegi. di ko ziyaare bu baax. di ko ziyaare bu baax. di ko ndokkeel bu baax di ko baax. kàddoom yi rafet na. sa kàddu yi rafet na. mat na matale na. mat na matale fa tabaarakallaahu fa tabaarakallaahu. nuyu Serigne Mouhamadul Bassir Khadim Awa Ba. nuyu itam Serigne Bassirou mu Serigne Khadim Awa Ba. ziyaare ko. ziyaare ko. masawu ko. masawu ko. ndokkeel ko. ndokkeel ko. fi may tëjee nag. fi may tëjee nag. Cheikh Abdoul Ahad. Baye Abdou Lahad. Baye Abdou Lahad. jërëjëf Mbacke. jërëjëf Mbacke. jërëjëf. jërëjëf. sa maam Cheikh Al wax ni. sa maam Cheikh Sidi Hadj Malick daan na wax ni. olof dafay muslu. olof dafay muslu. ci mujje puso mu réer. ci mujje puso mu mu ne man Malick li may muslu. man Malick nag li may muslu. fekke gu nuroog wuute. fekke gu nuroog wuute. dalu la. dalu la. yàlla bum la dal. yàlla bum la dal. yàlla bum ñu dal itam. yàlla it bum ñu dal. lii mashruuc bu rëy la. nee na lii day mashruuc bu rëy. te itam lu ñu war la de. nee na te it nag lu ñu war la de. dégg naa ñuy wax ni. dégg naa ñuy wax ne. wërsëgu jaambur. wërsëgu jaambur. ku cay wajaa seer. ku cay wajaa seer. war koo gërëm. war a gërëm borom wërsëg wa. kan la. kan la. suñu maam Cheikhul Khadim. sunu maam Cheikh Ahmadou Bamba. allahummaam. allahumma yi sëñ Tuubaa. ci la lii sottee. nee na ci la jàkka yeeg jumaa yeeg daara yi lépp amee. te lañ ci xam lu tuuti la. te nee na lañ ca xam lu tuuti la. ndax ñoom yàllaa leen nëbbal boppam. ndax ñoom kat yàllaa leen nëbbal boppam. fa tabaarakallaahu. fa tabaarakallaahu. kon li am solo. kon daal li am solo. Cheikh Abdoul Ahad. Cheikh Abdoul Ahad. yal na la yàlla dundal. yal na la yàlla dundal. lii mbokk yu tedd yi. lii mbokk yu tedd yi. seede ci yow. seede ci yow. ñaanal la ko. ñaanal la ko. ak ñi lay ñaanal ak ñi lay ñaanal ala zahril xayb ala zahril xayb yal na yàlla nangu lépp yal na yàlla nangu lépp te ful ko te ful ko def ko muy gudd fan def ko muy gudd fan def ko muy wér def ko muy wér def ko muy kaaraange def ko muy kaaraange nuyu suñu frère nuyu suñu frère ak ministre Abdoul Karim Fofana ministre Abdoul Karim Fofana ak délégation bi mu àndal ak délégation bi nga àndal sant ko gërëm ko sant ko gërëm ko ndokkeel ko bu baax ndokkeel ko bu baax ak mbooleem nag ak mbooleem nag sama mbokk yu baax yi ma fi fekk yu baax yii ma fekk. di sa di samay kilifa. di samay kilifa. ma kenn. nee na bàyyiwul kenn. rawatina waa dëkk bi. rawatina waa dëkk bi. waa tund wi. waa tund réew mi yëpp. waa réew mi yëpp. ci barke jataay bii. ci barke jataay bii. yal na yàlla def jàmm ci réew mi. na yàlla def jàmm ci réew mi. kaaraange. kaaraange. ak ndalte. ak ndalte. yàlla bu mu nekk suñu mujj daje. yàlla bu mu nekk suñu mujj daje. dinaay dégg ci Cheikh Al Hadj Malick si Maodo mu ne. danaa dégg ci Cheikh Sida si Malick Maodo muy wax ne. mu ne njaboot day ñaanal kilifaam. mu ne njaboot day ñaanal kilifaam. nañuy ñaanal Serigne Mouhamadul Mountakha. na ñuy ñaanal Serigne Mouhamadul Mountakha. mu ne lu tax. mu ne lu tax. sa kilifaa ngi boof ci ay xal. sa kilifaa ngi boof ci ay xal. mu di ko lakk. mu di ko lakk. ci ay dégg. ci mu di ko jam ko jam te ñemewu la onk te ñemewu ngir njaboot mucc ngir njaboot mucc rek ñoom loolu mooy seen toogaay nee na mooy seen toogaay yal na yàlla guddal fanam yal na yàlla guddal fanam dolli ko wér dolli ko wér jotal leen nuyoo jotal leen nuyoo ziyaara ziyaare ndokkeelu ndokkeelu xalifa ba xalifa seen mbokk seen soppe seen mbokk seen soppe Serigne Babacar Sy Mouhamadinil Mansour Serigne Babacar Sy Mouhamadinil Mansour ak i rakkam ak i rakkam Cheikhul Hadji Malick Maodo Cheikh Sidi Hadji Malick Aziz. Serigne Babacar Abdoul Aziz. Mouhamadul Mansour Abdoul ñoom ñëpp bëggoon nañu ñëw. na ñëw. ndax lii kenn warul des. waaye lii kenn war sa des. waaye ngant rek a tax waaye ngant a des. yal na yàlla fay leen. yal na yàlla fay leen. yal na sàmm leen. maa ngi jéggulu. maa ngi jéggulu. wallaahi naru ma woon jël kaddu. nee na wallaahi narutoon a jël kaddu. ndax kaddu yi jot a jib. ndax kaddu yi a jib. yóbbaale nañu ñëpp géew. yóbbaale nañu ñun ñëpp géew. dañoo bëgg rek. dañoo bëgg rek. ba xamuñu lu ñuy wax ba xamuñu li ñuy wax. salaamualeykum wa rahmatulah. salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu xam naa ci turu daayira Muxaddamatul Xidma bi nga xam ne ñoo yor jumaay Touba Cheikh Abdoul Ahad euh, dafa ñëwoon ci kilifa gi sëñ ab sëriñ Afia Bousso euh, sàkk woon ci ñu ñëw taxawul ko liggéey bi muy ubbi ubbi teg jumaay yamal ji te loolu nag mooy suñu liggéey ndax sëriñ bi daf ñoo sant ci jamono yii rek nañu fépp foo xam ne jumaa nekk na fi te aju ci tuuba Euh, walla sax ajiwul ci Touba nañ ko saytu organiser ko nos ko forme ña fa nekk moo xam imaam ya wala noddukat ya wala ñuy bayaan ak yu demee noonu kon su fekkee lii dafa njëkk a ñëw ginnaaw ndigal loolu ci ndigal li nga xam ne sëriñ bi boole nañu ko ñun ak Rawdu Rayaahiin daayira Muxaddamatul Xidma déplacé wu ñëw indi équipe ngir taxawu liggéey bi formé ñi nga xam ne ñoom lañ fi bàyyi ngir ñu xam ni ñuy saytoo jumaa ji ci wàllu entretien waaye ni ñuy jubbante sàppe ak ni ñi ñi fiy nodd ñu former leen ak yu ñu demee taxawu liggéey bi ba tax na fan yi ci gannaaw yëpp ñu ngi fi ñëw biig rek ñu ngi fi woon ngir xool waajtaay mujj yi ba tey gis ngeen ne julli ni mu demee ci wàllu organisation ak ci xutba beeg ci nodd geeg ci yu ñu demee yëpp taxawaayu daayira Muxaddamatul Xidma la ak personnel bi ak waa dëkk bi nga xam ne sëriñ bi boole nañ ñu ak ñoom loolu nag euh, dañ ci am mbégte lool ndax suñu diggante ak moom moom si Abdou Lahad taxawaay boo xam ne dana koy taxaw ci suñu wet saa su nekk lu aju ci liggéey bi ci liggéey daara Moukhaddamatoul Khidma ak ci jumaa ji ak tamit euh, relation boo xam ne tamit am na ko ak suñuy jëmm loolu it tax na ñu gën a sawar ci ci lu mel rawatina nag muy diine euh, ndax dañuy jàpp nañ jumaa ju ñu ubbi rek ju ju aju ci yoonu murid rek dafay tofu ci jumaa ji nga xam ne mayoon nañ ko sëriñ bi muy ñeenti bantam yi nga xam ne sempi woon nañ ko ca ba mu nekkee ci Mayomba ne ko danga nga yàq suñu soldats yi fii julli amu fi tam ñaanoon ñaanam gu rëy googu ci ci Madal Fawzayni euh, ci ci ci xasida ak raditu anil mawla euh, muy doon ñaan boromam ne ko la uktub salaatam ma salaamin bi alihi wa ashabi wa talbihi masjid rahba euh, biñ sempee bant yi dafa def def taw dafa tàmbali def tawassul ci xasida ak raditu baax si ci bayit woowu suñu borom xamal ko ne ko may nañ la juma joo xam ne Euh, da nga ko gis muy njaareem waaye jumaa ji ñu lay fayee dëgg-dëgg mooy jumaay Touba kon jëpp jumaa joo xam ne toftalu na ci jumaay Touba rek euh, te jii bokk ci Cheikh Abdou Lahad tabax ko bokk ci njabootuk sëriñ bi dañuy jàpp na ci payuk sëñ bi la dugg sëñ biir ñaanal ne waj xel buyuti kullaha masajida yaa naafihan man laa la yakunu sajida kon su fekkee ne dundal na ndono lu mel nii dëkk bi waajuram sancoon ko te ci diine rek jàng ak jàngale ak jaamu yàlla lañ ko sanc mu def fi daara tabax fi jumaa ju toll nii kilifa yi diine yëpp daje fi yoonu murit daje fi kon jaadu na ñun ñi nga xam ne ñooy yor banqaas bu mag bi muy jumaa ju mag ja nga xam ne jumaa yëpp ci lañ soofu ñu ñëw nag ngir taxawu liggéey bi mas ba noppi it euh, bàyyi fi formation boo xam ne dana tax ñu xam niñ koy saytoo loolu daal ci tënk moo doonoon ñun suñu taxawaay ci wet gi nga xam ne ñëwee nañ ko fi su fekkee ne amaatoo beneen laaj waaw. waaw jumaa moom bëri na ay njariñ lool ci dëkk ndax euh, mën naa laa wax ne la jumaa julli rek taxu koo jóg dafa doon jàngukaay dafa doon fu ñuy tàggate nit ñi ci seen wàllu diine dafa doon tamit fu ñuy yare dafa doon tamit foo xam ne nit ki mën na fee defar ruwam ndax su fekkee da nga bëgg a def lu ñuy wax euh, ixtikaaf wala nga bëgg a wéet am na ay néeg yu ko accompagner yoo xam ne mën ngaa sax ci jumaa ji di def li nga bëgg waaye rawatina xiirtal gi muy xiirtal nit ñi ci julli ajjuma ndax julli ajjuma Euh, dafa bëri tiyaaba lool te gis naa tund wi dafa mel ne jumaa jegewu fi ay jàkka laa fa gis te kenn suñ suñ borom tabaaraka wa taala yonent bi sallallahu alayhi nee na képp ku tardé ñetti ajjuma te amoo benn ngant ah, wala yaasu billah nit ki mën na cee sax tàbbi sawara kon nit ki war na fu mu dëkk fu nekk mu lu di julli ji ajjuma kon su fekkee ne moom def na lu mel nii def ko fii ngir dimbali jullit yi ba ñu mën a jaam jooxe jaamu yàlla gu rëy googu loolu lu am am solo xanaa liñ ciy dénkaane mooy ñi fi dëkk ndax Cheikh Abdou Lahad bu koy def def ko ngir boppam def ko ngir ak njabootam da koy def ngir jullit yi fi dëkk kon li ci njëkk mooy ñoom nañ ko sàmm ci ci entretien ci ci taxawaay bi ci setal ak lu demee waaye nag nañ ko sàmm ci di ñëw di julli si nag maanaam buñ jullee ci seen i kër nañu ñëw di julli si ci jumaa yi ba mu fees fonk ajjuma ji fonk lépp te fexe ba sos benn kuréel boo xam ne dañuy yor lu aju ci wàllu googu ci moo xam ci góor ñi ak ci jigéen ñi ci wàllu cet gi ak jubanti sàppe yi ak yu ñu demee waaye njariñ la lool ci dëkk rawatina ci gox surtout gox yi nga xam ne dafa am ay dëkk yu ko wër yu bari jàpp naa ne su fekkee ne ajjuma jot na dana leen amal njariñ lool kon yàlla ko yàlla fay te ful ko ndax su borom nee na képp koo xam ne tabaxal nga yonent bi nee na ku tabaxal yàlla juma ci suuf dana la tabaxal njënd ci àjjana te wa ammaa maa yanfaxu naas fa yamkusu fil ard képp kuy jariñ nit ñi yàlla dana la sabab ci yow gudd fan kon yàlla ko yàlla fay te boole ñu teyaaba ji ñun ñi nga xam ne ñëw nañ fi ñun ñëpp rek barakati xaadim rasul jërëjëf jërëjëf